ci li mu wax mooy ñun dañu nekkoon ci benn équipe nationale boo xam ne Sadio dépendance la Sadio Mané au summum de sa forme daf ñuy gàddu am ñeneen ñi bañ a dox sax moom bu téye bal bi mën na ko lijjanti mais équipe da nga koy préparer Sadio dépendance bi mi ngi jeex am na loo xam ne da nga wut yeneen alternative lan lañ ko mën a booleel bu Sadio nekkulee ci forme kan moo ko mën a jël kan moo ko mën a aw da nga koy sóor da nga koy préparer parce que ñun mënuñu continuer di yaakaar ci ñoom tout le temps bu ñu ko defee dinañ nax suñu bopp. te bu boobaa Alioune du wax ne nit ñi waxuñu ko alerté wuñu parce que Sadio sur le côté gauche bu fa nekkulee kan lañ fay def. bu bu nekkulee ci forme parce que jour tout le temps ngay nekk en pleine forme. d'accord pendant toute la saison. Mhm. di am ay moments de creux. Mhm. yoo xam ne c'est normal c'est c'est c'est c'est le corps qui répond pas. Mhm. mais loolu day am ci nit nga nekk en doute yooyu yëpp dafa mën a am. mais boobaa boo amulee Sadio looy def. pièce de rechange quoi. lan mooy alternative bi si côté boobu. buñ ko amulee lan la parce que gis am nañ benn instant boo xam ne. dem nañ ci coupe du monde mais on a essayé des chemins yoo xam ne demul. Mm-hmm. di naan lan la ñu war a def ak lu ñu warul def parce que boobu bett nañu mm-hmm. te léegi xamatuñu lan la ñu war a def mm-hmm. te loolu moom mooy nag équipe boo xam ne du anticiper ci dara parce que da ngay am ay joueurs au lieu que nga leen di dugal petit à leen mettre en jël ay Sadio nga ne ko tey match bi wax ak ñoom parce que lépp ci waxtaan ñëw discuter ak ñoom ay cadre lañu ay kilifa lañu mhm. da nga leen di jox seen gëdd nga ñëw ne ko match bi man je préfère nga xaar je veux faire démarrer telle personne voir ce qu'il vaut réellement en sélection à partir de là mhm. mais di gis ne am na ñoo xam ne dinañ la mën a apporter dara avec le temps mais tant que yaa ngi leen di bàyyi ci biti di leen jox ay dix minutes quinze minutes xam lan